Thank you. Ousmane Sonko Adji Sarr ak njeexitalam fii ci réewum Sénégal mu mel ni nag boobule mbir daal dinay indi rëq-rëq ci làngu ko politique gi ginnaaw làngu politique gi sax mën nañ ni indi na ko ci économie sénégalaise ci éducation ba ci sax li nga xamante ni moo di askanu Sénégal naka noonu sax ci fàttali mu mel ni ñaari doomi aadama daal dinañ ci ñàkk seeni bakken ci bi mbir mi tàmbaleek léegi loolee sax waraloon ñu wàcc sur le terrain dem ci ñenn ci askan wi dina ci seeni kàddu loolee sax waraloon ñu dem foofee ca université bu Thiès mu ci daara ju kawe yoyu nak ñen ci ñi ndongo yi nga xamanteni ño fay jànge dal dina yëkëti seeni seen i ci mbir moom. ñu téré rassemblement ci bir réew mi quoi je pense que ne trouble à l'ordre public buñ ko takal lool mom moom dëgg la quoi. non manifestation mom dou nga guñ Sonko parce que nekul kéro patriote yi kese ñooy wax si tali bi am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne duñ ay patriote mais ñu ngi wax si tali quoi man Abdou jonne la tuddu

bon ñu soko def leneen ak leneen mais quand à ay xeex ak sandi xeer di yak di toj man je pense que ni loolu vraiment warna naa war a mën quoi loolu da lay tagato quoi jërëjëf ci cadre bi. Sénégal ku gis ni muy doxee da ngay rouss parce que mënuñoo fàttaliku 2011 li yana mar marre li ku nekk xeex ci démocratie tay 2021 ñu tollaat fi yaakaaroon naa ni franchement loolu wéssu naan ko quoi parce que tamit nak bu nu waxantee ñun ñëpp fii fii sénégalais yi muus nan kenn ñàkku ci xel sénégalais yi muus nan te am nan xel te aussi boo xoolee seeni jugement xam nañ fi dëgg féete nan waxante dëgg rek parce que lii complot la quand lii ñun ñëpp xam na ni complot la bu nu waxantee dëgg parce que man pour man senegal waroon na weesu fii ci ay affaire complot pour éliminer un adversaire politique malgré nag da gis ni jeunesse bi ñu ngi jug yëngu nañ façon yàq parce yàq gi amul njariñ waroon na noo étape bi ñu toll franchement actuellement ni ñu yeneen dëkki yi nawee woon ci démocratie ak ni ñu bafouwee règlement yi man sax dama ciy ruus mooy seetaan télé lii ñëw ci kanam mooy daal incha allah rabbi dina toll kenn mënu si dara bu soobee yàlla ñu bàyyi si xel bu baax 2024 ñu dajale carte jox ko mu jël réew mi waaw ndax système bi dafa war a changé gars yi dañoo nekk réew mi di def lu leen neex loolu du yoon na ko après li may naqaru daal mooy gis bi ma gis préfet wàcc bi mu wàcc sur le terrain. Euh, te vidéo yi ñoo ngi fi vidéo yooyu moo gis daa xaw a naqaru ak euh, beneen bi manqué naq mooy taal yi ñu taal kii bi manifestant yi ñu taal mën nañu manifester wu pacifiquement ou ñu xool beneen manière bu ñu ko defee quoi mais imagine nga yàqal nit quoi yaakaar naa ñi ñi mu yàqal boo demee ay pro Sonko la ñun tamit ñu yàqal leen noonu te jaru ko quoi parce que réew mi bu tàkkee tamit suñu réew la ko ñu noonu def ba jàmm am fi moo gën ñi nga xam ne ñoo ngi jàng aussi ñu dem xool na nga xam ni daal suñ ko defee euh, dañu dañu mën réussir quoi ñu mën a élaborer ay programme yoo xam ni programme de développement la moo gën que bu ku am lu la metti rek génn ci mbedd mi taal bu yàggee ñun ñooy perte quoi puisque politiciens yi ñoom seen bopp nañu waxante dëgg mais euh, mooy loolu quoi buñ fi ñëwee aussi seen seen programme nañu seen feuille de route lañu am quoi te feuille de route bi yaakaar naa bu dee ci wàllum ñi ci gis seen bopp bariwul quoi. te tamit est convocation Sonko jaroon na manifestation. bon convocation Sonko. jarul woon manifestation quoi parce que mënoon nañ ko convoquer mu dem wuy ji. amaana comme lu mu wax léegi muy que ni dañoo yàgg a nax ci wàllum politique yu metti ñun xeex nañ fi jàpp nañ ci kaaw Idi dóor nañ ñu fi def nañ ñu fi lu nekk mais loolu yëpp tey bu ñu gisee lu ñu jàngal mooy ay déception kese lañ ci jàng ci biir loolu noonu yëpp moo waral. tey moo gisee population thiessoise bi kenn génnul kenn yëngalul kenn deful dara dama naan kon ñi xëy na jàng nañ ci ay leçons yu passé dañ cee jàng lu bëri moo tax seen tekk bii nii du tekk ragal du tekk leen maa ngi gis ci réseaux sociaux yi comme ni ñuy wax nitu Thiès nitu Thiès ñi nangam sangam du dañoo bàyyi lu ñu nekkoon mais dañoo màgg ci xel màgg ci jëf loolu mooy wutale ak tey yeneen dëkk yi lu ñuy def nii mais buñ duggee nag ci cadre li xew ci dëkk bi mais jàpp Sonko beeg yooyu je trouve que ni dafa am lu bëri loo xamante ni dañ ko war a dépassé ci wàllum démocratie Sénégal ndax bu ñu tollee ba deux mille vingt et nekk au vingtième siècle ay dictature bëgg a continuer di dem ci biir Afrique dama may jàpp ni c' est trop c' est trop ci dëkk boo xam ne dañoo ñaan yàlla avancé ñaan yàlla nekk ci l'élite ci développement wu wu àdduna kon bu ma tënkee loolu yëpp day dellu ci que ni. kilifa diine yi ak kilifa aada yi bu fekkee ni mën nañoo woote ci apaisement dëkk bi ñu xamal Macky Sall gën teguñu ko fi pour muy gum bi mais dañoo dajale suñu alal dénk ko ne ko doxalam luñ ko dénk la buggoo ko population nag wëññeekoo ne ko luñ la dénk yaa ngi koy salfaañee wala yaa ngi yàq boobaa war naa mun a dellu si xam ne luñ ko dénkoon te ko dénk ñoo koy laaj ay compte pour mu rendre leen ko mais du dañ ko mere wala lii lu ñuy doxalee moo neexut Sénégalais te nit ñi dañoo sonn dañoo sonn nit ñi xëyatuñu chômage bi bëri na ainsi de suite boo xoolee lu xew Dakar yëpp yàq-yàq yi muy bëri boo xoolee dañuy ci ay de ay ceeb maanaam dëkk bi ñoo sonn loolu tey amul priorité yaakaar naa du wax lii lii population bi fajee seeni soxla du ci ci santé éducation ainsi de tay luwaawam yi wala jema a jël ay adversaire politique di len di len faagaagal wala di di yàq di ternir image Sénégal te yaakaar naa ni bir Afrique kuñ fi nawul dépassé wuñ ci démocratie vraiment kon li mo ngi wañi sur démocratie de vraiment ci lool la nit ñi di xeex vraiment mais ñun Thiès nak bo gisé ni dëkk bi né selew nga xamni amna lu bëri lo xamni dañ kaa jang ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi na man nak waaw door nañ ma fi def nañ ma fi lu ne waaw mais muñ rek dëkk bee ma ko jaraloon xëy na Thiès moo ma ko jaraloon Thiès laa dëkk fii laa bëgg bëgguma feneen asalaam. ok que lii ñu neexul neexul yi daal neexul sénégalais parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ay doomu jullit lañ bii ñu ko jiin nii am ak démb kaa bi nu mu gën a amee ndakaaru mu war a ñëw jógee wakaam war a jaar université ñu ñëw baare ko ba midi ba 13 heures ba 14 heures mujj la jàll mujj bi ñëw gendarmerie jël ko fanaan loo ko fa lii moom dafa rafetul parce que day metti doomu aadama day metti militant Sonko yi ñëpp lay metti parce que man dugguma ci Sonko daal dugguma ci wante xam naa ne dama newoon nii su demee pour 2024 man sama carte moom laa koy may moom laa koy may parce que jeune la te jeunes yi bëgg nañ ko te man ni sama bopp man nii dama koo bëgg mu ngi soow politique musuma jàppale kenn ni Abdou Diouf ni man laay waat laa ko jàppale ñu gaño ko ma arrêté politique ñu ne ma Macky Sall man lañ doy na kon nag bu dee Sonko mi jour bu demee ba di def campagne suñ ko téewul man dinaa ko jàppale sama carte moom moom laa ko li gën a metti nag bii ñu ko téye daf maa metti nii ñeneen ak nii sama moroom ak ñu koy jàppale mooy militant bi ñu téye yëpp loolu man la a metti man nag sama liggéey laa ne du ma génn di manifester di def loolu du ma ko def sama liggéey laay ne sama heure waa si joxe ma toog si kër wala ma génn ñëw toog loolu mooy solution di daal loolu gën a rafet moo tax nag lii ngeen def ni yéen ñi journaliste dama leen ci di leen sant parce seen liggéey ngeen seen liggéey ngeen ne di ko ci def yàlla na ci yàlla wërsëgal ngeen gën a am place di gën a rafet bi ngeen toog di gën a liggéey ngeen ciy jàpp